كتك يبقى تيوليتي إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قولوا الله يلا وحر يلا وحر بوين بخشو سمبي جل لينكو ديالله القرآن أتيوليتي بني بني يلا واتنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوه فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما ولا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى تفيءه إلى أمر الله حتى تفيءه إلى أمر الله ndegam ñaari kuréel béjooti béjooti nañu. suñu borom ne ndegam ñaari kuréel béjooti nañu. ba rey war a am seen diggante ba rey war a am seen diggante. na ngeen yéwénal seen i diggante na ngeen yéwénal seen i diggante. bu ca nangu li ma wax. bu ca nangu li ma wax man yàlla. ba ca des bañ ba bañ. ba bañ. ba bañ. àndandoo leen bolok. àndandoo leen bolok. dal ci kawam dal ba mu ñëw ci li yàlla bëgg. suñu defaroon nag. suñu defaroon nag. ngeen yéwéne seen. diggante ngeen yéwéne seen diggante. waaye bul wax ne kii sama rakk. waaye wax ne kii sama rakk. teqale wàkke. teqale wàkke. bu mu ci am bu mu ci am. maa ngi lay teqale. maa ngi lay teqale. waaye léeg-léeg ma jox waa ji fu mu la bonkoos. waaye léeg-léeg ma jox waa ji fu mu la jekkoo bonkoos la. wala man sax léeg-léeg ma kutt la. wala man sax léeg-léeg ma kutt la. kooku baaxul ci du defar. loolu du defar. loolu du defar. yàlla ne ba mu jafee ba bay jeexal. yàlla ba ba mu demee nag انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه وقل انما التجاريون وقل انما التجاريون انما المريديون انما المريديون انما اللاينيون انما القادريون انما النقشبنديون انما الرفاعيون لا لا وكلا دفن انما المؤمنون جلد وقل بن سك دني انما المؤمنون اخوته kon nag sayu yëpp matt la kon nag sayu yëpp matt la innamal muminuuna ixwanam yaxwatu na yaxwatu yàlla ne fattaqullaha wa aslihu zata baynikum ragal leen ma te defar seen i digal yàlla ne ni ngeen ma ragal te defar seen i digal yàlla ne la tanaasaxu fa tafsalu wa tadhaba riixukum bu leen def tiiraayma ndax yàlla ne bu leen xëccoo bu leen def tiiraayma su ngeen defee tiiraayma su ngeen defee tiiraayma da ngeen perdre seen i bien da ngeen perdre seen i bien su ngeen ko perdre def échec. def def échec. ku dal ci yéen du man leen man leen. na ñëpp jóg ci. mooy leen bi xablihi jamian bu leen féewoo ku féewoo defoo ndigal. bi yow tasimu ma dumtumu taxta war riba من الله مولانا العزيز من اندقل بلن دود الاخضر بكن واني ابترم نين كوكو جخ بمت تنين بولة يترل بكن دود الاخضر بكن واني ابترم نين كوكو جخ بمت تنين بولة يترل ألا يا عباد الله ويلا بحبله جميعا بلن فيوكو فيو دفو نقل ليعتصموا ما دمتم تحت الرضا من الله مولانا العزيز من اندقل digal باي ngeen bàyyi لوك ko xëccoo amul njëriñ na دائما xam ni xëccoo daa iman mujj ga mooy يو كبان كبانيال يو كبان كبانيال يا صوبيا لما وخيا يا ركب وسوف تعلمون الله moonu liggéey yeneen bàyyi gam-gam lee di teqale du defar defar mooy na gën sax leen ci man du ma leen digal lu dul lu rafet عند العزيز إلهنا te ngeen xam ne man nii wal ali du ma leen digal ci luy lor wa rabbil arshi loola li leer na nañ ni lay la ta badrin fi sana am nga bët gisal الحاج عبد العزيز مالك ففي سورة الأنفال لا آية لا تنازعوا تبلين فنه جيم يبكن فتل بل فاو يجر جتن سوب ين يخم صراطا قيما ليس سالكه يضل وهذا صراطي قالوا الحق تبلين لبور أخني مهيانا بنين يون كنن نجل تعالوا نبولو تبو يلا تسخت فاو تموي تلمام يا با يا جابون تبن تيال الهي بمحد الفضل صوم يكيون يون هم سلقوها كبكم يون يقت عدل واياكم اهل المطار رجل بقاس بخم دول نيلين نغن خم جادول نغن سم حق الجاري فم في كما امر الرحمن لابدل يوم خلق وأكده خير الورى في حديثه فصدق فإن المصطفى دكني سصل ومنهم أخي جار أبل دكني حق غنيار الدحقان لو تحكم الكجل سنبنا وثالثهم حقا أخي بن ركله متل إن كلت نين خمني خلين كجادول ألا أحسنوا أعمالكم كل ساعة من سللت نياتي في كل ما محل sëriñ bi nag nee na léegi. yàlla dafa bëgg jaam yi ànd. yàlla dafa bëgg jaam yi ànd. bëggul ku teqale ay jaam bëggul ñu teqali ko bëggul ku leen teqali. ab siide. ne ab siide. bëggul kuy teqale ak juróom. bëggul kuy teqale ak juróom. waxuma la siide waaye sàmmam ba sax sàmm bi sax bëgg. waaye sàmm waxu siide waaye sàmm bi sax bëgg ku teqale nag yi mu jiital. sallallahu alayhi wa sallam nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na. فنجان في جسوا جو خمني فخم فنجان في جسوا جو خمني جي فخم موي دوغو سما بير خيت وي موي دوغ بير خيت ني بغالين تيقال بغالين تيقال كوكي كوكي فضربوا عنقه يلا يلا وني دوغ لين بات لول لا يونتي شيخنا التجاني يا شيخنا التجاني شيخ رضي الله تعالى عنه bëggul ay taalibeem teqaliko bëggul ay taalibeem teqaliko bañoon na ko waaye dafa am lu ko maamam wax moo tax mu gën ko ragal. Eh, bañoon na ko waaye am lu ko wax moo tax mu gën koo ragal gën koo bañ. qul li asxaabika laa yuudi baaduhum baadan li anni yuudini maa yuudihim. mais yéen ci yàlla ma nee nag waxal say taalibe bu ndax bu ñu lorantee lor ba ci te ku wàllu yàlla doon noonu. te kat il faut que ñu taxawaat beneen taxawaay. te kat faaw ñu taxawaay taxaw beneen taxawaay. soo demee ci kër sëñ Babacar am na ñoo xam ne ñu kontaan ñu xale yi ñëw ci man. mais boo demee seen kër si ne boobu kër si. dañu waxante dëgg rek am na ñoo xam ne kontaan ñu xale yi waa këram ñëw ci moom. dëgg jot na. te am ñoo xam du leen neex ma dem fa. am ñoo xam ñu leen neex mu dem fa. kon ana bëggul Seydi Hadji Malick. bëgg Seydi Hadji Malick anam kon. yow ñu fexe ba nga jubóog say bokk. yow ñu fexe yow ba nga jubóog say bokk. ba noppi ba noppi loolu yi ñu la defal loolu ñu defal dimbale woo ñu ñu juboo dimbale leen ñoom xanaa koo gisee rek xanaa koo gisee rek xëcc ko dugal ci xolam lépp xolam lépp ba su gisee Mansour Mbaye su ko dee nuyu nuyoo ba sax du sotti xam nga ne loolu ñaaw na trop ne du àndaale du lu baax Tiwaawan du ñu avancé jëm fenn ne Tiwaawan ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ndegam loola ngi ci ñoom ndegam loola ngi ci ñoom dañu taskar Seydil Hadj Malick yëkkati kii daaneel kii Serigne Babacar du dara baayam rek ay dara Seydil Hadj Malick du dara Babacar du dara mag ji du dara rakk kii du dara sët bi du dara moom rek mooy dox ci biir réew mi daayira yi loolu la ñuy doxal yilimaan yi loolu la ñuy doxal yi ci dëkk bi loolu la ñuy dara jaaduwul wat nañu wattu suñu bopp. ne ñu wattandiku suñu bopp bu baax. nañ yàlla musal dem ca kanamu yàlla daje fa ak Seydil Hadj Malick mu naan la bokkaloo ci man. yal nañu yàlla musal ci dem ëllëg suñu korom borom day si Hadj Malick mu ne yow kat bokkoon ci man yal na ci yàlla musal. si Jaksaw fii. si Jaksaw fii. bi kër gi xewagul nii. bi kër gi xewagul nii. am na benn waay ci jag saaw am na benn waay ci jag saaw naa jaar ci turam. ne xam na ko mën na jaar ci te moo ko nettalil boppam te moo ko nettalil boppam kat. Seydou Xañ May toog mbooloo mi wër ko Seydou Xañ May toog mbooloo bari wër. ca mu ñëw di ko wut si. waajoo ñëw mu ne ko demal bokk la ci sama mbooloo. waajal ci dëkk bi fii waajal te kat moo naa turam. xam na turam xam naa santam xam na luy métier am. xam na luy métier am nekkoon Jack Sow bi mu gisee loolu. bi mu gisee loolu moo ko nettali boppam dafa nga ne loolu jàmm. loolu de musiba la bu rëy. ah baaxul baaxul ñun dundatul man day dundatul. eh moom day ndax koo xam ne kii yaa dese lëf war ko toppatoo. ndax koo xam ne yaa ñëpp ne du fi amee. ñëpp ne du fi amee. boo du neex du neex dëgg dëgg te man su doon sama sago te man wax naa ko ba tey wax na ko ba tey su fekkee ni nit ñi a jubóo su fekkee nit ñi duñu mën a jubóo lu dul yàlla sàkkal leen ko xam ni yàlla sàkkal leen ki xam dañ koy def njam waal ba ba muy génn àdduna maa ngi nii joxe na sama ngir nit ñi jubóo bu ci nekk nit yëpp bokk jublu. yal nañ ci yàlla defar sutura. yal nañ ci yàlla defar sutura. dafa am benn bi damay waxtaan ak yéen pour rek ngeen wattandiku. day waxtaan ak ñun ngir rek ñu wattandiku. mag soo ko dee digal te ëppaloo ko xel rawloo ko gënloo ko muus da nga koy won lu mu teg bëtam te xam ko. soo ko dee digal te gënoo ko yow da nga koy wax lu mu teg bëtam. dafa am benn ca jamono yi paase. boobu kër gi tàng na de. nee dafa am jamono yi ci jamono yi paase. boobu kër gi tàng. boobu kër gi tàng na lool. mu mel na kay ëllëg mooy tabaski. mu mel ni ëllëg mooy tabaski. mu wax Moustapha Diop mi mu wax Moustapha ne ko man day am na loo xam ne ni maa ngi koy bëgg a def. ko man kat am bëgg a waaye rëy na de. waaye daal lu rëy tiis na de. yàlla dimbalul doo ko mën ku yàlla dimbalul doo mën mu ne ma lan la lan la. mu ne ma ma wax ko wax ko ko. mu ne ma dagam mën nga ko day dara gënu ko rafet. mu ne ko dagam mën nga soo ci amul taggu nit ñi. soo ci amul taggu nit ñi. yàlla dana ci kontaan sa baay dana ci kontaan. sa baay am gërëm. ma toog ba ci ëllëg sa. mu toog ba ci ëllëg sa. ma yéene ne su ma rendee sama xar. mu yéene ne man de ma rendee sama xar. tabaski jooju la ma man soor jëkk a indil rajo. tabaski jooju la ko man soor jëkk a indil rajo. waaye waxuma kenn dara. waaye waxul kenn ma ne su ma rendee sama xar fii laay seppi ko wuti. kenn waxul dara kenn man bu ma rendee sama xar fii jullikaay bi fii laay seppi ko rek jëm ko suñu Babacar. taxawaay ba. waaye taxawaay julli ga. ak tàngaay ba. ak rendi bi ak rendi ga. jàpp na jàpp. da ngeen di déglu li ma leen di wax bu baax. ne nañu déglu bu baax li muy wax. ku ñu la seet sa xol soo mënee def nga def soo mënul nga bàyyi. ne nit lu ne ci xolam soo mënee def soo mënul bàyyi. ma bàyyi ko mu bàyyi. ndax keroog bés ba coon coono bi. toog ba ci ëllëg sa mu toog ba ci ëllëg sa. mu woo ay gaay mu woo ay gaay ne man de dama bëgg waxtaan ak yéen man de dama li may def. tey li may def. jarul la nëbb. jarul la nëbb. kuy borom bakkan nag doo ko nangu. kuy borom bakkan nag doo ko nangu. xam naa sax da ngeen ma kàll gàllankoor. xam naa sax da ma ma looy bëgg def. a def. man de kër sëñ Babacar. dem kër sëñ Babacar jàqale <laughs> ma gis ay kanam ñëkk xaat. ma ay kanam ñëkk xaat. ma ne woowu ma kenn. ma ne woowuma kenn kat. ku mën a toog ku mën a dem dem ku mën a dem toog. ma daal di ne ñokket. mu ne ñokket jóg. fab sama mbubu sol fab mu sol. ñëw ba ci jàkka ji ñëw ba ci jàkka ji. ma ne Moustapha damay dugg ci jàkka ji ziyaara Seydi Hajj Malick. naafila tàggu Seydi Hajj Malik dugal sama tànk ndeyjoor sama xel dem ci lëf. xelam dem ci lëf. ma daal di dellu mu dellu si. ñu ne ma doo dugg ñu doo dugg. ma ne déedéet man déedéet. ma ne lu ci yoonu Seydi Hadj Malick. yoonu Seydi Hadj Malick. xanaa kontaan rek. xanaa kontaan rek wa kafe billahi shahida. waaye waaye yàlla nii tax may def doy na seede. soo kenn dëgg la. yàlla tax may def soxlawul may dem ci moom. soxlawul may dem ci moom. naa dem rek. naa dem rek. wetu une heure. une heure ci bëccëg. ma ne saraax ca biir kër mu ne saraax ca biir kër am ñu ma xool ne waññeet am ñu ko xool daal di wëlbatiku ma song escalier mu song escalier am ñuy ree dem ba ca saal ba am ñu ma fa fekk am ñu fa fekk ñu ne rëgget ci sama kow ñu rëgget ci kaw wax lu nekk lu ne ma ne leen yéen bañ leen santaane yàlla waaye man maa ngi koy def bu leen soobee seen def yàlla wax ca lan faal ne ragal leen yàlla te ngeen yéwénal seen i diggante seen i diggante moom la sant ñëpp moom la sant ñëpp man maa ngi def sama wàll man de maa def sama wàll man soxna Astou ngi toog soxna Astou ngi toog sëriñ sëriñ Mansour a ngi toog sëriñ Mansour a ngi toog sëriñ Cheikh ngi toog sëriñ Abdou ngi toog sëriñ Abdou ngi toog ma sëriñ Cheikh ne leen sëriñ Cheikh ni leen ñi ni ko ñu rëkk sëriñ Cheikh ni leen yéen da ngeen jàngu xamu leen dara yéen kat da ngeen mel ni jàngu leen dara ngeen xamul sama papa Abdou li mu def ku ko def bët bu rëy lañ lay xoole sama papa Abdou li mu def ku ko def bët yu rëy lañ la war a xool ndax sama bàyyi nekk na fi ba jóg fi mënu ko ndax sama bàyyi nekk na fi jóge mënu sama papa Mansour def ko moom la ko yàlla séddee ku def lu rëy bët bu rëy lañ la xool ma ne man def naa li may def man de li may def def naa ko rek loolu nag suñu rëyu xol yi loolu nag suñu rëyul xol yi suñu rëyul xol suñu rëyul xol yi su suñu rëyul xol yi xanaa fab suñu jëmm yi suñu jëmm yi gënal ñu yàlla suñu jëm yi nu fab mu gënal ñu yàlla suñu jëmm yi gënal ñu Seydi El Hadji Malick suñu jëmm yi gënal ñu Seydi El Hadji Malick gënal ñu ak njabootam gënal ñu ak njabootam luñ fiy def luñ fiy def na ñibbi nañ ñibbi kon yal nañ yàlla defal sutura yal nañ yàlla ba def suñu ñëpp te itam pour waxuma ko pour kër yi yem dama bëgg ñëpp àndandoo nekk benn tax mu wax ko doo bëgg ñëpp àndandoo nekk benn. a nekk nag. du mën a nekk nag. waaye ku ko jéem daa ko mën. waaye ko jéem nag daa ko mën. nee nañu. nee nañu. bàyyiwul ci réer dara. bàyyiwul ci réer dara. ku bëgg a taxawal lu yàlla bëggul mu taxaw. ku bëgg a taxaw lu yàlla bëggul mu taxaw. xam nga ni jubale nit ñi. nga ni jubale nit. lëf la lu jafe. lëf la lu jafe. waaye su jafe. waaye su jafe. ñëpp bàyyi ko. ñëpp bàyyi ko. dara du defaru dara il faut ñu jàpp. il faut faw di gor góorgóorlu di gor góorgóorlu sopp suñu sëriñ sopp suñu sëriñ sëriñ si ci dess ñu ormal leen dess ñu ormal leen bu ñu wax ci seen der dara seen der dara bu ñu leen ngañ bu ñu leen ngañ bu ñu leen wax lu bon bu ñu wax lu bon wa awliya'i عبادي ليس يعرفهم غيري فقد قالوا رب الورى دجلل له الولاية يا إخوان كالبريد aw mbubb mu ñaw mu rafet moo xam ni dees na ko sol du ju tudd mbooloo du ci baay du ci ndey laakin alaamatuwaa taqwaa gu dara raxul wa awliyaa falaa xawfun li leey la ma wax alayhimu li mu wax yow waaji doy na nga neel ku dal ci seen kaw fa inna allah aadanahu bilxarbi saddiq fa inna allah daaka faal هو ولي سوى من صاحبين نيب تجاب يالا بوير يالا دي دون كي كفال كون سب لين تمغدل لين لونين مسمن تباي سندر بولين لين نان يوم سلل وأولياء عبادي ليس يعرفهم غيري فقد قالوا رب الورى دقلل ده الولاية يا إخوان كالقري أم من يوم رفت ما خم ندس نقصل إن الولاية يا إخوان بدك جس قد قالوا القدماء يولي ما وخلا نقول إن الولاية ينواني أخي فبل تسوب فرل بباخ على الإله تصل قلبا تقوى العلي تتب عين قلم تتتم أي ترام فوطل تيرفتل shall give you to the léegi nag. nee simili léegi nag. alxaji Ibu. alxaji Ibu Sakho. sa yëf yi bàyyi ngoog yaa ngoog. sa yëf yi bàyyi ngoog yaa ngoog. nga leen bégal. incha allahu. incha allahu. wax lu dul lu leen bégal loo leen loo leen wax loo leen wax doo leen wax lu lu leen di bégal ci rasulullah ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inchaa allahu taala inchaa allahu taala benn bés benn benn guddi benn ana joom yaay Isma Ndiaye benn guddi ne benn guddi ca Jaksaaw ca Jaksaaw moom mii moom mii Njóob Ndiaye Njóob Ndiaye Alaaji Si Alaaji Si Sëriñ Ousmane Si Sëriñ Ousmane Si Alaaji Moustapha Diop Alaaji Moustapha Diop dama dégg keroog mere naa leen lool man soon mbay nee keroog mere na lool. boobu wallaay su fekkoon ne foo am na téléphone. nee boobu su fekkoon téléphone am na dana téléphone Pati Pati Dieye Fatou Fall Dieye. téléphone Pati ci mbirum yonent bi. alxaaji Ibu nekk ci mbirum yonent bi. ak mbirum eh, Hicham. ak mbirum Hachim. Hicham. Hachim Hicham de Hachim. Hachim. ca mu demee Madinatul Munawwar. mu demee ba yàlla dogal mu am fa soxna. ba yàlla dogal mu am soxna. la ca xew xew fa. la xew xew fa. ba Abdul Muttalib. ba Abdul Muttalib. di war a jël si doom ja. war jël si doomam te gawar ga di ko dab. te gawar ga di ko dab. ba ñu yëgee ni mi ngi koy dab. ba koy dab. te mu ngi togg xale bi. te mi xale bi. léeg mu am lu mu ragal jàdd yoon wa. léeg-léeg mu am lu mu ragal jàdd yoon wa. waaye leeru leeru nubuwatu gi. waaye nag leeru nubuwatu gi nag. mi ngi nekk ci jëw xale bi. mi ngi nekk ci jëw su góor gi kaala wooy. su góor gi kaala wooy. leer gi gën bëtt kaala ga. day su ko defee gaañ gis ko. su ko defee gaañ gis ko topp dem. ñuy dem. ba mu yàgg rajo bi arrêté. ba mu yàgg rajo bi arrêté. ma ne daal ca dëgg dëgg. ca dëgg dëgg. sedd na doomam ji. sedd na doomam ji. ci téeram bi ci téeram bi Ibou Sakho. muy Ibou Sakho yal na yàlla yàggal lool yàlla yàggal taxawaayam. kontaan nañ ci lool kontaan nañ ci lool. suñu xol sedd na ci. xol sedd na guy. bu leen ñu fàtte ci ñaan. bu leen ko fàtte ci ñaan. ah. Ousmane Niang Dieng. waaw dana ci suñu gàmmu pir. nee suñu gàmmu pir. gi nga xam ne. gi nga xam ne. Seydil Hadj Ahmed Cissé radiyallahu anhu. Seydil Hadj Ahmed Cissé radiyallahu anhu. fa tabarakallahu fa tabarakallahu mi nga xam ne ñayu lislaam la woon mi nga xam ne ñayu lislaam la woon doon kenn wu rëy ci kër Seydil Hadj Malick doon kenn gu rëy ci kër Seydil Hadj Malick moo ko daan def moo ko daan def ba yàlla jële ko ba yàlla jële ko man la daan sant ma ko yëgle nii moom daan sant ma ko yëgle ci guddi gu mel nii mu toog ma toog ci wetam mu sant ma ko ma di ko defal wala ca jàkka wala ca jàkka mu dem ba léegi mu dem ba léegi mu des mu des ci loxol Hadj Moustapha mu des ci loxol Hadj Moustapha Cissé moom itam mu teg ko ci loxoy wajuram moom it mu teg ko ci loxoy wajuram ay rakkam déggoogu moom topp ci moom ay rakkam déggoogu moom topp ci gannaaw ay taalibu bàyyim ay taalibu bàyyim noonu ak i xaritam ak i xaritam gàmmu gi des ci loxoom gàmmu gi des ci loxoom diisoo naa ci wajuram diisoo naa ay wajuram diisoo naa ñun diisoo naa ñoom ba ñu d'accord ba ñu d'accord ci mu war a nekk mu war a nekk le douze décembre le 12 décembre. Le 12 décembre. le 12 décembre. Inch'Allah. Le 12 décembre. حمزة سم حمزة سم كريمير سنو رك ني ركم دي سنو دوم باي دي دوم باي باي مدون تسام رضي الله عنه رضي الله عنه دي خالبو دي خالبو ام فول دي خالبو ام فول ام سب بودي بودي مكان يابو مكان يابو بو خامني تاريخ بالرك لا سو بو تاريخ بالرك la mooy soxlaam. li mooy soxlaam. gannaaw bi nga xam bi gannaaw bi gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. ak yeneen kii bi ak yeneen taraxe bi rek soxlaam. moom soxlaam. moom am sa. dana gàmm. dana gàmm. le cinq. le cinq décembre. le cinq décembre. juróomi fan ci mois de Niang suñu sangu